L'association des aviculteurs de Touba di GIE à date di kuréel goo xam ne dafa ëmb ñi nga xam ne dañuy yar ginaar fii ci dëkk bii di Touba ak Mbacke ginnaaw ziar bi nga xam ne amal nañ ko ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacke moom Serigne Bassirou di général des Mourides ci weeru juin 2021 bi tey jii ci alxamis ji dëppoog le 24 février 2022 dem nañ ziare ji Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdoul Khadre mi nga xam ne moo yor kàddu yoonu Mouride dem ziar ko leeral ko liggéey bi nga xam ne moom la ñuy amal ci dëkk bii di Touba mu jëm ci wàllum yarum ginaar ak mboolem projet yi nga xam ne bëgg nañ koo taxawee ci dëkk bi mu jëm ci fànn googu. ci sëriñ sëñ Muntaxa mu ñaanal ñu te it euh, ku fi mas a nekkal sëñ tubaa li muy wax yaay ay tànkam yaay làmmiñam yaay ay loxoom kon nag loole su amee euh, bu ñu jógee foofa ca moom it fii leen ñu yabal si. kon euh, muy mu doon lu ñu bëgg it lu ñu nam ndax euh, fii lañ bëggoon a njëkke waaye ni mu demee biñ ñu walaatee fii mu doon loo xam ne suñu cër la di suñu lépp euh, mbooloo mii nag nekk mbooloo moo xam ne ñi nga xam ne ñoo ko daje bokk na ci ñoo xam ne ci bokk bitim réew lañ nekkoon ñi nekk ci réew mi di yëngu waaye suñ borom dogal ñu am taxawaay boo xam ne dañ ko bëgg a def ñu xool ñu ne seen liggéey ak seen jëfin mi ngi màcc ci euh, liggéey ci wàllu élevage liñ ca taamu nag mooy li nga xam ne mooy wàllu ginaar yi ñuy jëfandikoo ñoom moom la ñuy liggéeyee ñii ñëpp ñi ci nekk kenn ku ci ne euh, yor nga ci ay nit loo xam ne emploi li nga ci yor daanaka mat na fukk ak juróom wala lu ko ëpp am na it ñoo xam ne ndax lépp lépp mi ngi nekk ci ay mi ngi nekkoon ci groupe bi yëpp trois cent et quelques personnes léegi nag euh, bi yàlla dogalee it ñoom kenn ku ci nekk li ñuy def euh, jéggaani wuñ ko fenn ci wuñ ko fenn kenn ku ne da ngaa làmb sa poos ñu daje. ñu ne nañ fexe ba li ñuy soxla fii ci biir Touba ñu fexe ko fee def loolu it bokk na ci ni ko ñeneen ñi di defee ci yeneen réew moo xam dakaar comme yeneen euh, kii yu mag yi lépp ñu def ko fii ci Touba niñ ko bëggee nag mooy fexe ba nen bi nga xam ne mooy jóge Brésil. ñu fexe ba ñun ñi di ko am fii au lieu que ñu ko importe ñu ñu def ko ñu waaw nen bi nga xam ne moom la ñuy defaree ginaar ñu jëlee ñu di ñu di ko jëlee Brésil ci jamono yi nga xam ne amul Sénégal ñii njaboot gii ñoo dajaloo pour bëgg fexe ba nga xam ne ñoom dañoo fexe bañ di ko defee fii ci biir Touba nga xam ne ganaar gi fii la koy nene ñu def ko ci machine yi ñu toj ko ba noppi yaraat ko fi ba màgg ñu bitim réew lay jóge ah. loolu nag ci lañ def ay xayma ndax ñii fi nekk am na ci ñoo xam ne seen xam ci loolu rek la màcc Euh, ñu di ay kilifa nekk ci biir dëkk bi ñoom it mm-hmm. loola it séddiwuñ ko benn cër lu dul sëñ Touba mm-hmm. euh, liñ ci bëgg nag Mbàkke ndax boo gisee ne fi mu nekk nii jamono ji comme yëf yi Ndakaaru la ñuy jóge doon na coono ci wàllu diggante aliment ak yeneen yi nga xam ne yooyu yëpp day am yooyu yëpp it nag état lim ciy joxe moom ñooñu nga xam ne ñoo yor yu mag yooyu ñoom la koy jox ñu di ci liggéey nañ ci liggéey te askan wi war cee joti ñun nag ñu seetal ko suñ bopp war a xam ni amoon naa am fii ñu dajaloon nag génne suñu li ñu am teg ko wëlbati ko fas yéene ànd ci ak ay nit yoo xam ne ci biti lañ ciy soxla woon nag mooy ci réew mi fa nga xam ne war nañu faa taxaw ak leneen yaakaaruñ ci kenn ku du sëñ Tuubaa te bañ jógee sëñ Tuubaa lañ jiital te yow mi yaa fi kon nag ñuy ñaan li njëkk a def mooy ñaanal ñu ci baatin bi nga xamante ne bii lii yëpp danañ ko mën a yeggale nañ koy gën ndax ni ñu ko tàmbalee bañ demee ci sëñ mu ne dem leen dina baax te ñu yebal ñu fiit bañ jógee dafa mel ni yëf yi suñu borom da cee teg loxoom ndax mbirum sëñ Tuubaa moom du mos a deltu gannaaw wala muy yeex loolu it gaaw na am na ñu fi amoon fukki at wala ñaar fukki at lañ doon liggéey ñun ci jamono yooyu jamono yi boobaak léegi matagut at yegg nañ foofa ñun ci taxawaay yooyu liñ bëgg nag mooy fexe ba nga xam ne mboq mi fii lañ koy defee cuuj bi fii lay nen bi fii lay juddoo machine yi koy def fii lañ koy yore aliment bi nga xam ne moom la ñuy defarit fii lañ koy defee nga xam ne su boobaa oto yi feneen lañ koy yeb di ko fa jëmee mais du lu ñuy indi ko fi jaay si lépp fii lañ koy defee ci loolu daal ci la ñu nekk euh, di ñaan it ñu gën ñoo ñaanal bu baax ci kenn ku ne emploi yi ñu yor ak ni nga xam ne noonu la ñuy liggéeyee ci ñoom ñu bàyyi xel ci euh, loolu ci muy ci état muy ci feneen ñu ñaanal ñu suñ borom wayefal ñu ko ba liñ ci bëgg ñu mën koo amee nañ ko amee tey jii nag ñu jàpp bis bii tey pour ñëw seet si la siyaare la euh, te di la wax nde la sa njaboot a ngi nii euh, lépp loo xam ne euh, war na ci taxawee daal di bëgg nañ koo taxawee liñ bëgg daal mooy waa kër sëñ Touba kenn soxlaati te yëkkatiwuñ ko waxuma la di ko jaay ci biir waaye ñun la ñuy am ak nañ koy liggéeyee te fokkuñ ko jox ngir addiyee sëñ loolu fas yéene doon ay taalibe ak ay murit yoo xam ne duñu duñu séen ci lenn loo xam ne lu ñuy tere la te it fas nañ yéene taxaw taxawaay yoo xamante ne bii liggéey ak jaamu yàlla gi sëñ Touba digle woon loolee ñu mën caa taxaw ba li ngeen ko bëggee ngeen mën ko naa amee ba du ngeen am ci benn lu ngeen ñuy xebete loolu moo waral mbooloo mi ak njaboot yi ñu dajaloo ñëw te di xamal ne daal sa kuréel a ngi nii say doom a ci nekk say jarbaata ci nekk say taalibe ci nekk sa lépp a ngi ci biir waaw loolu daal mooy tey liñ ci gën a taamu mooy bokk na ci ñi nga xam ne tey ñooñ lañu tuddee tudde askanale ci kër sëñ Touba mm-hmm. fépp foo xam ne am nañ ci kër yi ci kër yi ñoom ñoo ñooñee bokkoon nañ ci ñoo xam ne ña ngay liggéey seen liggéey nañ ko war a liggéey bokk ci lii nga xam ne biñ demee jàppoon nañ ni waruñu woon bu fekkoon ne ci lu ñuy xalaat la dañ naan ñii xëy na liggéey bii doonul lu ñu waroon def ci ñoom waaye ñoom jàppe nañ ko liggéey ndax kenn ku ne euh, am sa soxla làmb sa poos faj ko loolu doy na leen ci ci liggéey Sëñ Tuubaa ba kenn du leen dégg fu ñu leen wante dégg kenn du leen seen fu ñu leen wante dégg wax ji daal gudd gàtt lépp sëñ njaboot a ngi ni say taalibe bi ngi ni lii nag ñoo ko yëge ci woon def ko addi sëñ Touba ñëw indil la ko ziyaare la ko euh, toll na ci matagul at matagul at matagul at waaye daal waaw ñun li ñu li liñ ci yor moom euh, toll na ci lu na ci ñeenti téeméer rek euh, lu kii daal benn bi ci bi ci gën a tuuti it bokk na ci loo xam ne dina def lu mat junni wala junne juróomi téeméer waaw par par kii par sujet li ñuy dugal par kii bu ne bu ñuy dugal waaw maanaam euh, li cuuj yi ñuy dugal poulailler bu ne yaatoo na loo xam ne mën naa dugal loolu kenn ku ci ci dëkk ci dëkk bi lay ñëwaat loolu sax sëñ bi doyut <laughs> waaw ndax li ñuy jële ji ci fu mel ni dakaar bu ñu fa dee jëli ay nen di ko indi bu ñu ko doon jëli di ko indi eh, dana ñuy soxla semaine bu ne lu mat vingt cinq mille te duñ ko mën te loolu sax mënuñ koo amaguñ moo tax ñu bëgg nag ñun jëlee ji ko ca nday ja fa mu nekk indi ko fii nga xam ne léegi bu ñuy def dañuy fexe ba lu mat cinquante mille wala nangam par semaine bu ne mu mën a génn te lépp ci dëkk bi la jëm te du doy sax waaw te du doy. ginnaaw bi ñu ko leeralee liggéey bi moom Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadir rafetlu na bu baax a baax adaat di association des aviculteurs de Touba ci ni nga xam ne def nañ ko ba booloo doon benn te nee na leen liggéey bi fas na ko yéene ànd ak ñoom. Cheikh Mamadou Bachir ne mi ngi leen di delloo am nuyoo bu baax. di ko teg ci loxol jarbaatam bii. di Serigne Cheikh Abdou di doomi Serigne Cheikh Lo Ngaabu. ak nag mbooleem yéen ñi nga xam ne yéen la seqal liggéey bi yépp nee na kenn. nee na ñëpp di ay taalibe. dëkk ci dëkk bi. nee na mi ngi leen di sant bu baax a baax. di leen gërëm. di rafetlu it liggéey bi ngeen di liggéey bu baax. nga xam ne nii ko Serigne Cheikh du waxee. yitte kawe la. yitte waaye nag lu mënta ñàkk la. ngeen di ko def nag ngir liggéeyale ko Sëñ Touba. ak lu ngeen yore seenu njaboot. li muy li sëriñ bi di tuddee kasbul xalaali. kon loolu nee na loolu kon dara jiituwu ko ci. kon nee na mi nga rafetlu jéego yi ak xalaat bi bu baax. rawatina nag àndandoo gii ngeen àndandoo. nee na la sëriñ Abdoul Ahad Mbacke waxoon. mbooloo lu ñu seq. te nosuñ ko. duñ ca mën a jariñu. duñ ca mën a jariñu. duñ ca mën a jariñe. kon. Eh, mbooloo moom. kon mbooloo moom. aljamaatu rahma. aljamaatu rahma. cheikh Mouhamadul Fadal da ko daa firéene. mbooloo mu ànd. mbooloo mu ànd. bokk bëgg-bëgg. bokk bëgg-bëgg. bokk yéene. ay pexe. mu ne ji mooy lu ñu jëmman ko. kon lii itam. mu doon loo xam ne mënut a ñàkk ci dëkk bi. te bu ngeen ko amutoon ñëppay dem di ko wuti. te bu ngeen ko amutoon it ñëppay dem di ko wuti. kon ngeen xam ne ab liggéey. kon ngeen xam ne ab liggéey. loo def loo def jom. loo def jom. def ca sa yitte. dana àgg fu kawe sa kon mooy lii ngeen dajaloo rek. kon sëriñ bi nee na mi ngi leen ci ñaanal bu baax. ci barkeb Serigne Touba nag. sunu boroom barkeel ko. defal leen ci ndam. ba liggéey bi barkeel. ba fu ngeen bëgg mu àgg fa rek mu àgg fa. te nee na bu ngeen ci góor góorloo nag. te am ci yitte nag. fa ngeen ci bëgg àgg dangeen ci àgg. kon moom seex moom Bassir nee na mi ngi koy fas yéene ànd ak yéen. ci lépp loo xam ne nekk ngeen ca. mu ko. mu yëg ko. te ànd koog yéen ndax nee na loolu moo di ko fi bàyyi rawatina nag moom Cheikh lii day seenub jarbaat baayam itam maamam moom xam ngeen ni mu demee ci yoon wi waaye waajuram moom sëñ Cheikh taxawaayam ci waa kër Serigne Touba yëpp koo ci tudd rek da jàpp ne kookee rek la gën a jaxasool rawatina nag Cheikh Mouhamadul Fadel ak Cheikh Abdoul Khadir moom mii itam nag noonu la leen yàlla boole mu am ci moom yitte ak Pastef ak taxawaay boo xam ne Serigne Touba rek la sëñ Cheikh Abdou ànd ak Cheikh Mamadou Bachir ndax Serigne bi nee na xam na ne ko am jom la waaye nag ku am pas-pas la ku am taxawaay la kon nag bu nekkee ci ngeen ànd ko. ngeen ànd ko. dana gën a dal am xelam. ndax jëwriñ moom boo ko amee. ndax jëwriñ moom boo ko amee. bu taxawee nam war a taxawee. bu taxawee nam war a taxawee. foo jotiwut jëwriñ ja dana fa joti. kon nee na mi ngi leen di sant bu baax. di ko fas yéene ànd ak yéen nag liggéey bi. fu ngeen ci toll rek. ngeen fexe ba sëriñ bi yëg ko. moo ànd koog yéen. jërë jëf. association des aviculteurs de Touba di ADAT fas yéene taxaw temm ci lépp loo xam ne day jëmale kanam wàllum yarum ginaar ci dëkk bu sell bi di Touba. waaye mboolem événement yoo xam ne ñu ngi ko fiy organiser ci dëkk bi ñu taxaw ci taxawaay boo xam ni def seen kéemtalaay kàttan ba lépp loo xam ne moom lañu yittewoo ci wàllum ginaar ñu mën ko matale.